ñoo ngi leen di nuyu leen ziar leen baalu àq yëkkati suñu kàddu ñun Cheikh Sidi Mbacke ndax sànq dama jot benn coup de fil loolu ñëpp ko xamandoo sax muy yëngu yi nga xamante ni am na Sénégal waaye damay ñëw si xombal yi nga xamante ni dañ koo bokk seq ko euh, mu am li nga xamante ni ne lu personnel la ci ñun ndax Antoine Félix Abdoulaye Diome day suñu xarit suñu mbokku taalibe di nit ku sore si ñun am na li nga xamante ni ne bu ko nit ñi defee ci alalam walla ci biir këram euh, lu ñuy ñaawlu la koy ñaawlu bu baax a baax a baax a baax di di di condamné acte yooyu waaw ñun ay taalibe lañu te fu ñu mën a nekk ci àddina aussi ci li ñu sëriñ bi li ñu nampe ci sëriñ Tuubaa rek moom la ñuy doxal kon képp kuy woote woo murit wala ngay wootewoo woo ci sëriñ bi nga àndal am na yoo xamante ni ni ak lu lay mën na nekk ci yow euh, doo ko def tax na fu ñu mën a nekk ci àddina bi jàmm rek ca la ñuy dox moom la ñuy wax Euh, di sàmmante yi ak la war ci réew ñu mën a nekk daanaka tey jii nii bu fekkee dem nañu ba ci di fi def ay yëngu ba congrès mën a wala sénat mën a bind ay ay ay ay ay ay bataaxal di di di témoigner suñu liggéey Serigne Touba boobu ñuy ñuy yeesal fii <coughs> euh, loolu kon képp kuy woote mbokk wala bokk ci sëriñ bi loolu rek moom mooy li nga xamante ne moom moo la war kon ñoo ngi masaw euh, Antoine bu baax a baax a baax xam ne euh, moom day ñun ñuy moom te waxuma ko nii rek pour wax ko noonu lu yàgg la waaw ci gaawaa nag li ñu seq ak bay ndaw ba léegi lépp di rafet kon bëgguñu dara lu lu lu lu lu gàkk-gàkk wala lu mën a doon waaw luy luy bàyyi ko fenn di jëm ci moom rawatina xombal xombal moom dañ koo bokk te ñun ñëpp tamit waa xombal moo xam parti politique la moo xam yan ku nekk opinion bi nga am mais xombal dafa mës a am fierté ci ci ci ci ci ci ci doomi xombal ak lu mën a xew nag ak lu mën a xew danan ko jàppale danañ ko kii bam bu leen bokkul yi xalaat wala bokku leen Euh, jum jubluwaay ci yenn yi rawatina nag koo xamante ni ku ku baax la waaw te tamit il faut ñuy mën di def la différence des des ci ci yenn yi kon nag euh, euh, lii daal am ci kër Antoine neexuñu ñu ko def def nañ lu ñaaw ñu ngi condamné ak yooyu Euh, di massawu Antoine bi di ci ci grandeur bi mu am ak jéegu yi ci euh, sëñ magay booy def ndax sànq lañ ma woo wax ma ko euh, jox ma ci plus d'information muy sëñ Papa Diagne <clears throat> ma ne woon naa yëkkati ay kàddu ndax te lu xew ci pénc moom wax ko ci kaw ñëpp dégg ko daanaka loolu mooy li jaar waaw kon nag ñu ngi koy métti lu bu baax a baax a baax ndax euh, Antoine moom day day day ñun ñuy moom waaw te ñun suñu devoir mooy jàppale ko ak fi lu mën a nekk te duñ amul sax ci séntu walla walla dara ci genn fànn waaw ndax ñun moom euh, sëriñ bi defar na suñu mbir démb tey soog a ñëw waaw kon nag. Euh, bu lii amee moom metti na ma lool sax ndaxte këram suma kër la moom rek moom laa mën a wax ne euh, man maa ngi fàttaliku am na at moo xamante ni na ma woo ko li may am fu ma dal ak am kii ak yëpp ma ne ko sa kër laay dal mu am ci mbégte lool mu wóor ma ne kër gii nii mën naa faa dugg waxtu ma soobee. waaw kon nag ku ko lakk suñu suñu alali alali xobbal nga lakk alali sëriñ bi nga lakk acte bu ñaaw la tamit nga koy ñaawlu bu baax a baax a baax comme nag njëggal am na nañu defaraat toogaay yi te fexe ba yenn yi maanaam bu mu amati ci daw mi xombal waaw ndax ñu am na ci li nga xamante ni kat euh, rafetul luy mën a dox ci yow ah, yooyu nañ koy nañ koy bàyyee xel mën nañoo wuute ay xalaat ak ay kii waaye lu jëm ci violence moom ñun duñ ko mën a mës mës a euh, mës ci ànd ci ci genn anam sax du ci genn anam ci genn anam waaw kon ngeen jot suñu vidéo nag foo leen si biir réew mi ngeen mën a jot moo mën a xam li nga xam